borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf sax ci ak déglu wàccale micro yi di nuyu sama mbokk si teew fàllu si naan naa ne aw saa yu nekk moom si naan bi boo fayal amul si naa fi beneen bi maa ngi nuyu sunu sëriñ sëriñ si Mbacke Alxuraan di si sëriñ sunu musée sama dëkk yi nga xamante ne la ñu koy nuyu ñi nga xamante ne aussi tamit ñooy sumay xarit bi samay bi samay jàmm bi samay nit bi ñun si waa koñ bi ñu nekk suñu dëkkandoo ñu nekk parce que ay dëkkandoo yu baax ñu ñu ñu ngi dugal seen bopp. fi ñuy jàng kër ñuy may àndal ñëpp fi ñuy permettre suñu daan waaw ba mu demee ba ñu may ñu saxee fi ñuy suñu papa papa yi ñu mais boo xamante ne depuis deux mille quinze ba léegi moom mooy jàppale Salam waaw Oumou Faye léegi Paa boo si bàyyi tey am na lu mbégte mu rëy tey teew fii ci biir jàmm ak waaye tey li yàlla dogal mooy rêve bi réalisé wu ndax tey bés la boo xamante ni bésu mbégte la ci yow waaye bésu mbégte la ci ñun tey ngay ànd nit. mu dëdd amoon rêve ci wuy jurum bu jigéen automatiquement bi mu dëddoo nga ne dinaa eggale leer sa diggante Fodé lan la waaw sama diggante man ak Fodé la Fodé moom man ak moom mun naa ne alors ah, àdduna loo xamante ne mënu ma ko sax wax parce que loo xamante ne nekkul lu bët gis nekkul loo xam ne pour moo ko gis nekkul loo xamante ne tamit lu génn di wax mais lu dul xol xam loolu il faut liggéey bi mën naa gën a bëgg sax waaw liggéey bi boo paree ni ma liggéey man sama kër sama waaw kon liggéey yéene la Fodé maa ngi woon ñu nekk boole ñu àndal ñu ñëpp ñu bëri dañoo bëri woon nekk xale ñun ñëpp ngay gis ñun ñu nekk ba léegi dañuy ànd ñu ngay gis ñëpp. maanaam bu ñu bu ñu doon ñu mel lu ñuy ci biir nekk maanaam moom bokkul quoi parce que ñun ay affaire waajur la ñu wax mooy dimbali ay nit loolu la ñu wax loolu la ñu nekk si mooy waaw nan la nit nekkee si jafe-jafe la gànnaar si koñ bi nan la amee xew ñu lañu dajalee suñu dix mille dix ko benn xar jox te loolu lañ doon def li nekk ay booy ba léegi adama koy nekk moom lañu fen loolu a bu bu ñu dem ñun li ngay gis si ñun ak li nekk si dañoo leeral dafa mu dee waaw kon nit nit kenn xamul nit lan la waaw Fodé nag man dafa mën nax ba dem parce que dafa gënoon man dëgg Fodé mosuma fàttaliku foo dundee loo xam ne hasard waaw foofu dama koy dama ma koy mën ko si doy mais bu ma may jox ay facture ma dem naa gaale bi jënd naa ma ceeb def naa kii lii def naa lii te lépp man lu muy def après loolu man loolu laay mën man loolu moo may neex parce que xaalis xaw ma la naa ko def ñi nekk xale ba léegi laa la kon ànd bu dëddoo àdduna ma xamal mbébétam foo dee ñuy waxtaan dafa ma gaañ man maire bi bu ma ko si gàlla rek bu naaj foo dee bu ñu amee xaalis foo dee day am xaalis yi wallaahi dem fayal yaayam location un an kan moo koy def man ko yow foo yow loolu mënoo jënd sax teere bi noonu man ma waaye sama xel sa nekk loolu nga nekk si jàmm gëm-gëm boobu bu ko ndaw amee yow nga xam ko ci moom ma yàgg waxtaan ak moom man ak yàlla yow bu mu génn àdduna non keneen bu xamul mbébét man xam naa kon sama mbébét nekkul ma lu ma am xaalis ma am ma dem jox yaayam man ma man am naa yaay mais tey mbébétam mooy mu dugaloo yaayam ci kër te ku xam loolu yombul terrain bi bu ñu koy jënd ma fàttali ko grand xale sëy man bu ma koy sànnee yàlla yàlla mu boole ko fii xale bi moo ma jàppale fu nekk war naa ko ak kër mu am valeur ci biir jàmm mais dañuy gisee nit ñoo xam ne soo bu ñu xamee ne yow yaa nga soxla ko lool dañuy yóbbaat kër bi feneen ba terrain bi li ma nga amee ñu jàng ko gisee loolu ma ñëw moo góor yàlla yëpp kon terrain bi def nga ci jëndee nga ko. waaw yow terrain bi li ma fi def si xaalis bu ma laa wax lii la. terrain boo jënd kese te tabax ñëwagul non ma woo góor yàlla yëpp ma a ko man xaaruma kenn góor jàpp ci góor ba góor yëpp fan jëm chaque jour bu ma xëy damay yor sama pub di piqué mais li ma bëgg dama koy def parce que lu ma suma gëm-gëm la samay xarit fekk sama si may dem États-Unis jël liggéey bi yëpp bàyyi ko si loxo wëj parce que moom laa joxoon ay cag-cag pour muy liggéey ma ne ko bénéfice boo am demal foofu nga liggéey bi ma ñëwee fii dama fekk liggéey bi nekk ci beneen méthode ma ñëw rek àndale lépp ñu jeex kon ñun lii lañ doon ñaan yàlla lii nag mooy suñu parce que Fodé bu amee ndam ñu am nañ ndam li koy ñaanal lii bu nekk lu ko da ngay gis ay nit ñoo ah, li nga def dafa rafet rafet moo def ko dama ko xam Fodé li ma defal wallaay kon maa ngi sant di sant Sénégal yëpp ndaw banlieue bi laa wax de ndaw jàmm gën dama bëgg ñun ñëpp ñu booloo waat ñu booloo waat tey xam ne amul lu nit mun a am am am am te liggéeyoo ko. loolu liggéey bi mooy barke sëriñ maama leneen ma defal kon man loolu moom mos a nekk sama message. Fallou man dama doon am juróom fu mu sori ma ko lekk sama yàllaa ko yóbbu. damay jóge marché jàmm gën daw ba sama mën yaay joxo ko te du ma lekk. kon loolu loolu man man coono yi ma daj dafa métti. yaa ngi dégg kon tey man am am am amatu ma dara de mais am moo ma saful. dox am saful waaw xam nga dox saful moom. parce que damaa xam suñ ngay def mu def ko mais dafa am lu gën a fees ci man muy nekk lu nekk sama xol muy lu nekk lu ci man ma jàppal ni yàlla rek tax ba maye bi tax kii man dama ko gisoo mu xamoo ko xoolal xamoo ma xam amul lu may dugg ci làmb te duñ ci waxtaan li si xaar bu ma wax dama koy nangu. permax bi ma fenn bu may jàppale boobu léegi suñu nguur am laay waat la war a ba lu ñëw ba tey bu may jàppale. kooku kan laay war a jàpp. dama koy jàpp fukki loxo naan di wax ne encore une fois di wax ne maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp koo xamee jàppale nga ma ci chantier bi samay xarit samay am di sant naa leen gërëm naa leen. wax ne maa ngi ñaan yàlla jàmm si dëkk bi di wax ne ñun ñëpp dañoo war a jàppoo nekk benn te boo gisee ñu woote jàmm lii mooy jàmm lii mooy tawfeex waaw ñun li ñu wax concerné wul kenn si ànd parce que man sama gëm-gëmu bopp la man bu ma amee kenn ku may toog kenn kese la muy maam Serapha. est-ce que. man hmm. bàyyi laa laa toog man amul man du ma man sama sama sama vision man sama gëm-gëm bokkul la gëm-gëmu bii ak na muy nekk sama xarit. bu koy bàyyi xelam mais man sama xel man lu dul jàmm jàmm moom ko gën waaw. jàmm laay ñaan si lépp parce que jàmm lañ ma xamee jàmm laay dund man li ma toll ma boo ma bëggee dugal si fitna gaan da ngay da nga dégg da may sonal. si te ñu ñëw sa digganteeg euh, Serigne Sidi Alxuraan. waaw ki la defar. waaw ba nga mel ni nga mel. sa diggante ak moom. ñu gis démb mu ñëw fi ay xaaju guddi def ñaan ci kër gi sa digganteeg sëñ Sidi Alxuraan. waaw mooy ñu nekkee ay chaque jour maa ngi koy junj lu wax yëpp dañuy yóbbu waaw ñun bu ci nekk booy dañoo bari woon dañoo déggoo woon te ñun bu ñu mosaan a gis nga yaakaar ne ay def nañu ñaaw téeméer léegi ñun bu ñu a ñëw Daaru maanaam ñu bari dañuy clamé foofu des fay ñëw mais siñ bi dañu doon téye foofu dañu bëriloo maanaam organiser mbabat ci biir kër gi foofu la woon foofu lañ doon organiser ñu ñoom booy seen numéro deux. déglu leen waaye. ay ñoom góor su Kona yëpp. bëri nañ foofu Kona daan naa ko foofu. yaa ngi dégg ñun ñëpp bëri nañ foofu foofu laa doon bëree Kona chaque année ma koy jël. léegi nag man sama sama lamb foofu la tàmbalee Touba laa tàmbalee. est-ce que oh. sama biir kër Serigne ba fay jël tawaam bëri yëpp dafay ñëw. ba koy jël ba mënatuma bëri foofu ci laa ñëw Dakar laa am ay Baye Fall ñoo ma doon gunge dañuy sikar bi majaal ba egg dégg nga man noonu laa tàmbalee bëri man noonu laa ne man li nekk ci man sax xaw ma fu nekk ko tax lay waru ko tax bew waruma lay waruma man nit dafay dem loo xamante ne sax waaw yow man maa la gën a capable lépp mais damay sëgg xam nga yàlla rek mooy jàmm yàlla mooy boole nit parce que tey mënu maa def li ma def ma nekk sama junniy morom damay ñoom yu bëri mais mu jiital ma seen biir def ma ñoom si ñoom kon man dama war a doon keneen keneen koo xamante ne ku kenn si ñoom wala ma oyof wàññee sama bopp dal jàpp ñëpp ñëpp laa dal ñëpp laa foofu. waaw parce que léegi li ëpp ci jeunesse bi. la ñuy nekkee ci biir réseaux sociaux yi. léegi jikko yi dañu changé surtout la jeunesse sénégalaise. tey boo amoon kàddu yooyu lancé jeunesse bi. waaw loolu li ma ciy wax rek mooy bu sa bu sa waajur yarul bu sa waajur bu yarul bu la mbedd ci diggante da lay yar da lay nax mbedd bi mënul yar kenn kenn ku si nekk yaay jaayante ak sa bopp. ak sa bopp nga am yar am teggi parce que yari teggi ak ay ñaar yëpp a yem man doo ci gis dara mais boo wéetee da ngay xam ne lu baax rek am solo boo wéetee da ngay xam ne lu baax rek am solo kon ñu koy def nañ leen ñaanal parce que bu ñëpp baaxoon nga gis ñoo xamante ne dañuy gédd seen cër nag soxal ñun nañ leen ñaanal ñooñu noonu bis ñëw yàlla soobu leen lu baax mais dama la bëgg a xamal benn affaire man laa wax man damay toog di sant yàlla parce que man bu ma bu ma amoon xel pour dugal ñi si ñaawteef dañ ko ñoo pare parce que man damaa yor lépp damaa capable lépp mais man lu rafet rek moo sut sama bopp bu mu wéetee sax lu rafet rek laay xalaat waaw kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant Maxime Mbargane bi damay wax de damay wax de bi dama koy sant parce que xam nga dama koy sant. ba léegi dama naan lu bëri dañoo umpale sama diggante ak ñoom. parce que may naan lu sama diggante man ak moom. parce que kii nii bi may bi may nekk lam saa di jàng bëri boobu man bu ma jógee entraînement bu ma jógee entraînement damay soxla ay weccet yi dama naa ko père ñuy dëggal tournoi mais moom junni bi ñu nekk si moom man day nekk lu rëy man parce que damay am yàqin dama koy yóbbu. mu ciy def ba tey ñu ñu doon champion benn mag ma mos a wax mu ne la ma dangay jóg moom sama nga dix pour cent bi ngay jóg ma ne ko moo ko moom ma ne ko moom moo ko moom ma ne ko moom boo ko wàññee si moom dina la tere nga doon champion keneen fulaat feneen su dul yow te di ko laa ko da di sant samay xarit di sant samay mais li ma wax si loolu wax naa ko ku sa waajur yaru mbedd bi ñëw laa yaru jërëjëf